waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu internet yu Univers TV yëpp ak fu waay mën a ne ci àdduna bi maa ngi lay nuyu nuyu bi gën muy asalaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. Secka doomu banlieue bi la mm-hmm. Caaroy la juddoo mm-hmm. fii nga ma fekk fi laa màggee ba toll nii fi laa commencé fi laa doone li ma doon tey waaw commencé samay activité ci théâtre ci ASC bu nekk fii ci sama koñ li jiitu sama école bi ma doon jàngee franco arabe bi fa laa defe art mooy théâtre ba sama koñ formé ASC muy ASC sant yàlla ma continuer di def théâtre ba ci la ma yàlla dajaleeg sama benn xarit bu ñuy wax Moudou Bousso Leye moom ma njëkk financé moo nekkoon ministre de la culture moom ma njëkk a financé jëndal ma ay sabar Mm. ma formé sama groupe bu bopp. Mm. ba nekk Seka bii tey kooku mooy Seka. waaw kooku mooy Seka Seka dafa mel ni jaar nga si théâtre ku ne théâtre nag ne di reetaanlu di xorom mais ana kon lan moo la dugal ci euh, mbiru taasu meeg wéy bi wala. maa ngi nuyu sama mag mm. sama xarit El Hadj moom mooy raga raga juma soo ma gisatul bonjour comment ça va comment la santé. mu may nag waa méngoo concert mm-hmm. concert bi sama mag sama xarit DJ Sow Karim moo ko doon présenté mm-hmm. après moom moo ma présenté El Hadj Ndiaye mm-hmm. El Hadj di joué benn morso bu tudd Baye Gonjo invité ma ci kaw chaîne bi ma yéeg ci kaw chaîne bi Sega boobu mosoo wéy non boobu mosuma taasu mosuma def dara vraiment ci loolu laa commencé ak euh, à part def ay animation ci biir théâtre mm-hmm. comme ay cœur d'ouverture ak affaire yooyu li may wax ñii théâtre xam nañ ko mm-hmm. yooyu yooyu lañ doon def mm-hmm. di di di taasu foofu ci théâtre bi quoi mais après nag ci loolu laa ko jëkk a defee ci laa commencé ak El Hadj Ndiaye ndax Secka mën nañoo xam ban morceau la njëkk a wéy boo xamante ni yëngal na àdduna waaw maa ngi njëkk a ànd ak El Hadj Ndiaye bu tudd Chéri ci lañ doon wax c'est quand di mm-hmm. mooy premier morceau bi ma participé ak El Hadj mm-hmm. après loolu nag laa formé sama groupe mm-hmm. bopp sama premier album sama premier morceau bi jëkk a toj Sénégal nag mooy lëmbalu naar lëmbalu naar mais lëmbalu naar amoon na coow lu rëy Secka ñëpp naan lëmbalu naar ndax mosuñu ko dégg Secka boobu nan nga doon garder yëf yi waaw lëmbalu naar bi muy génn am na ñu mu neexoon am na ñu mu neexul parce que boo fàttalikoo censuré woon nañ clip bi mhm. mais loolu ba parce que dafa am naar yu ci kontaanul woon mhm. loolu moo waraloon mhm. ñu censuré clip bi mais morceau boobu la xam ne vraiment fi mu yóbbu sama tour la mbalu naar yóbbu na ma États-Unis dem naa ci France Angleterre partout la le monde wax dëgg yàlla morceau boobu yóbbu na ma fa bi may njëkk a dem États-Unis di dem tourner Pape Diouf laa àndaloon ak Ndeye Gueye boobu lëmbalu naar moo tax ñu jël ko. Mm-hmm. mais wax nga ci Pape Diouf sa digganteeg artiste baal yi bi nan ngeen di dundee ndax ku ne Sega pikin ak yi ngay wax mais fii nag bëri ay ndaanaan moo xam Pape Diouf wala Waly Seck wala gars yëpp ñu ngi fi nan ngay dundeek ñoom ba ci Aba Cuba la Baaba am Amdi comme ni ñu ko waxee noonu. waaw euh, artistes yi nekk banlieue man yëpp samay xarit la. Mm-hmm. man yàlla dimbale na ma bokk naa ci artistes yi nga xam ni hmm. amuñu benn xaar ma yàlla hmm. ak beneen artiste man ñëpp samay xarit lañ hmm. ñëpp samay nit lañ ñëpp laa bokkal banlieue bi ñëw waaye nag plus particulièrement ki nga xam ne moo ma ci defal lu ma kenn mës ta defal moom Waly Ballago la Waly Ballago lan la la defal Sénégal waaw li ma defal mooy man rabi kenn du ma sayloo te du ma wax nit lu mu ma defaloon. wax ma lu mu la defal. billaahi mënuma laa wax fii la waale dëkk ci Ndakaaru hmm. musuma dem këram. Hmm. xaw ma fan la dëkk. Hmm. du am soxla ba woo ko ne ko fajal ma bii soxla. mais defal na ma loo xam ne rëy na ci man torop ndax nit amul lu dul bisam. am naa sama bés. taal sama oto dem ba ci soirée. wax ko ko. mu yëkkati teraanga ju bari ca bis ba jox ma. Mm. ni ma dinaa ñëw mm. sama anniversaire tax jour boobu tëggul ñëw wuy si ma mm. indi fa teraanga jooy loolu mennum Wally Seck moom ma ko ma sa defal loolu fa la ma fekk muy euh, guddi aawo yi nga xam ne da nga koy def soraano defe naa loolu yow xam nga ne Thiat Diop ma nga fa woon muy lu rëy te ba mu ñëwee macha allah yëf yi neex mais Secka lan moo tax Secka moom benn yoon rek lay tëgg ci année bi genre boîte yi mag yooyu lan moo tax loolu waaw xam nga xam nga xam nga nit ku nekk nag am na sa sa yoon woo xam ne moom ngay liggéeyee mm-hmm. du du du du du benn yoon mais Sénégal mm-hmm. benn date boobu laa fi joué Sorano mm-hmm. muy guddi aawo yi chaque année ah mais maa ngi joué maa ngi voyagé waaw yaa ngi voyagé loolu dëgg la mais yeneen groupe loolu yan boîte ngay faral di tëggee. non man nag sama kii man du ma tëgg ci boîte yi quoi vraiment. fan ngay tëggee. man maay man moom maay maay borom jàkkaarlooy yi maa ngi ci jàkkaarloo yi. <laughs> jàkka jàkkaarloo xam nga tugg tëgg soirée. Mhm. tey su ma neexoon mën naa am benn date ci boîte yi chaque jour chaque semaine. Mhm. mais am date. Mhm. boo xam ne chaque. guddi nga fanaanee joué ba bët set te doo ci gis sa bopp mm. say musicien du duñ ci gis sa bopp mm. pour man boobu Secka ngi tëgg boobu amul sens mm, mais Secka dañoo gis ne bi waale génnee Pape Diouf génnee mais Secka xaw a fay waaw c'est-à-dire bés bi daal dafa wàññeeku waaw xam nga nag àdduna mooy doxe noonu mm-hmm. du bi Pape Diouf génnee wala Waly génnee man ak Pape juuf ak Waly sax bokkuñu lu ñuy def. Mm-hmm. waaw man ak Pape Diouf ak Waly. Mm-hmm. bokkuñu lu ñuy def. Mm-hmm. mais nit ku ne yàlla lim du du du mayee dara daf koy able. li ñu war mooy nekk ci suñu liggéey. continuer nekk ci. waaye ku ma xam man. xam ne bokk naa ci artistes yi ëpp luñ jiwo Sénégal. def naa diwo ak Pape Diouf. Mm-hmm. def naa ko ak Waly. Mm-hmm. def naa ko ak Kiné Lam. Mm-hmm. def naa ko ak Fata. def naa ko ak Abdou Guité Seck. Mapenda Seck. ak ñeneen ak ñeneen. mais nag <laughs> loolu li yéen li ah, ñu li ñi di gisee ak li am du benn. man uma beneen métier bu dul musique ci musique laa am comme métier. li ma lay wax yow xam nga ko mm-hmm. moo ma yor ci laay dund ci laay dem fu ne mm-hmm. ba nëgë ni si maa ngi ay contrat yoo xam ne kore mm-hmm. corona bee ma ci train mais Secka gis nañ la temps yi nga yor oto bu rafet macha allah laf cet te bi nga jógee ci guddi aawa yi mu fekk ma fa yàggul dara ma gis yëf yi taxaw kan la ku fa jaar waaw waaw maa ngi loolu sax ki ma ko defal mu buggul ma ko wax sama xarit la boo xam ne ku ma bëgg la ku ma yërëm la ku am ci man yëg-yëg la maa ngi koy nuyu soxnaam bu ñuy wax bint Diallo moom ma defal loolu waaw maa ngi koy nuyu au passage di waaw xam nga ñun nag yàlla daf ñu def ñuy ay artistes mm-hmm. juddoo ci banlieue bi judduwuñu fekk suñu bàyyi yore milliard mm-hmm. judduwuñu fekk suñu yaay yoru ko mm-hmm. bi juddoo ak li suñu doolee bàyyi di néew néew it ñoo ci doon dund ba toll nii mm. ñu yar ñu ci wax loo mën parce que nit mën naa wax lu mu mënul mais mënul def lu mu mënul mm. ak loo nit li nit war a jëkk fexe garde mooy dignitéem ak kàddoom man yow def ak yow émission def kook waa nu mu ti canal horizon ñoo yem ci man. <laughs> soo ma ko waxee ma wax la waaw waaw la. su ma ko mënul dama lay wax. loolu xam naa si dara. waaw kon ci loolu lañ ñu yar. Sega eh, si loolu lañ la yar Enerver bi ñoom kontaan nañ ci yow gërëm la mais nag di sàkku nga tëjeek ñoom taasu bu neex. waa Enerver bi moom li ma leen di li ma leen di tàggoo rek. ak di ko tàggoo sama. bokk yu oo internet yu Univers TV yëpp nag di leen wax abonné leen mm. ci Univers TV ndax Univers TV kat ni ma ko gisee mm. université la